masa coono tamit ci kii bi ci coono yi di la di la dalal tamit di wax ne sa sa kàddu njëkk noo ko après euh, di ziar bu baax tamit di di di sant bu baax tamit waaw di nuyu waa Sénégal yëpp mais rawatina waa Hann Bel-Air mais di sant tamit waa Hann waa ñëpp vraiment ku gis tey taxawaay bu ñu

léegi tamit euh, ñu lay wax tamit man man man ban yëg-yëg nga am quoi bi nga dugg see koñ bi gis euh, xale yeeg mère yeeg paa yeeg ñëpp lan la def quoi tey. waaw euh, kontaan trop kontaan trop parce que comme ni ma ko waxee woon sànq quoi vraiment nit amul lenn fi mu dëkk te taxawaay bi dafa doon taxawaay boo xam ne dañuy gën a motiver davantage pour ñu jéem a persévérer gën a liggéeyaat bu baax te xam ne defaguñu dara. comme que li rek lañu am ñu taxaw ñu ni donc li sas la quoi pour ñu té incha allah dinañ gën a pour vraiment rendre fier suñu dëkk waaw parce que li na sas kase la té lool rek lañ koy jappé nak di sant tamit aussi tamit ñëpp quoi waaw. ok waaw selon yow tamit léegi d' après équipe nationale bi ak club bi tamit lan ngay dénk xalé yi xam sa ginaaw tay waaw je pense que ni euh, secret amour secret amour lépp c'est le travail quoi c'est le travail parce que àdduna moom nekk nit loo bëgg rek euh, pour man liggéey rek moo la ko mën a may waaw mais liggéey boobu nag daa am lu lu mu ëmb muy concentration bi persévérer def sacrifice lu kii lu bare bari bari te je pense que ni loolu ku ko def rek euh, rien n'est impossible quoi waaw loo bëgg rek mën nga ko am les gars yi nekk ci kaw li ñu am du leen lu dul liggéey rek moo leen ko may donc pourquoi pas ñun tamit ñu am ko te ñeneen ñi nga xam ne ñoom ngi suñu ginnaaw war ñoo xam ne ñu ngi ci métier loolu rek lañ leen digal aussi tamit waaw di leen sant bu baax tamit gis nañ la ci ay image ci internet bi nga sol caaya sol mooy Sénégal yore drapeau Sénégal di teeru say mag yore coupe di teru ñoom sa Mané ñi nga xamante ne nii bii daaw ñoom ñu ngi indi trophée bi nga dem ba aéroport teeru ci avion bi yore sa trophée yow yore sa coupe ñëw wàcc aéroport gis nit ñi di la teeru yow loolu ko dundee.

ñoom ñuy fecc di di di kontaan loolu nag du leen dañuy dañuy sant yàlla rek waaw sant yàlla la ñuy def te xam ne aussi tamit euh, du suñu jàmbaar war a leen mais dañ koy sante yàlla moo ñu ko may donc te dañuy continuer di liggéeyaat ba mayaat ñu leneen ak leneen daal waaw. léegi yow ginnaaw loolu di euh, nga sante sa dëkk Sénégal sant say dëkkandoo sant say mbok yëpp muy commune d'arrondissement bu Hann Bel-Air di waa Yaraax vraiment ñëpp rafetlu taxawaay bi ak ni nga leen sante ak ni nga leen léegi nag sa morom ak sa rakk yi nga xamante ne nii ñu ngi ci championnat di football ak ñu nekk ISB ak euh, waa am Bel-Air Sport yëpp yow lan nga leen di wax. waaw euh, am na loo xam ne même su ma ko waxul woon sax euh, ñi ñuy déglu li dinañ xam ne am na yeneen talent yoo xam ne ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi yaraax fii nii je je peux dire ni ñoom ñoo ma ëpp sax talent fuuf fuuf fuuf. waaye xëy na nag yàlla man la dogal man ma génn ci tey jii nii dem représenté leen feneen euh, ba ba indi fii xanaa lii donc loolu dafa war a doon juste une motivation de plus pour ñi nga xam ne amaguñ ko war a defaguñ ko ñu xam ne que ni comme que ñoom am nañ talent bu ëpp bi ma am rek bu ñu liggéeyee rek mën nañ am lu am lu ëpp lii sax te jàpp naa ni euh, incha allah dans quelques années di ngeen gisaat ñeneen ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne def nañ lu raw see Ibrahima yi li mu def parce que am na fi talent bi mu ngi fi. te gars yi aussi tamit ñu ngi liggéey ci loolu parce que am na encadrement yoo xam ne ñu ngi fii staff yoo xam ne ay entraîneurs yu mag nekk fii di jàppale gars ci loolu te loolu gëm naa ni dans deux ans war trois ans résultat dina feeñ incha allah bu neexee yàlla dinañ dégg ay pro yu bëri incha allah yaraax fii nii te loolu la ñaan yàlla nag. amiin yàlla na ko yàlla def. amiin léegi nag ginnaaw sa kàddu euh, ñu ne dañ lay sargal samedi bii di ñëw fii ci dëkk loolu lan nga ciy wax yow. waaw xanaa xanaa xanaa di ci di ci woo ñëpp rek di ci woo ñëpp ci bis boobu ndaxte je pense que ni bis boobu moom du sama bis daal bisu bisu waa Yaraax yëpp la waaye Yaraax yëpp nag laa wax an belleer boobu dimanche waaw te su ma waxee an belleer man moom dama ciy dugal Dalifort parce que Dalifort mën naa ne sama fief la tamit donc dañ ciy woo ñëpp ñëpp ñëpp pour ñu ñëw ci bis boobu noonu xam ne bis boobu seen bis la mën nañ ne tuddee ko ay sargal Cheikh mais Yaraax la ñuy sargal an belleer la seen doom moo dem ñëw indi li kon Hann Bel-Air moo am résultat Hann Bel-Air moo am lépp donc ñoom la ñuy woo ci bis boobu noonu ñoom ñëpp ñu ñëw xam ne seen bis la lépp luñ ci def rek ñu xam ne seen bis la ñoo ngi leen ci woo incha allah samedi incha allah waaw. léegi daal ginnaaw bala ngay sant di gërëm maat euh, bëgg nañ daal kontaan nañu euh, ci say dirigeant ñëpp ñu la encadré fii ci biir commune bi ak ñu nekk ci biir commune bi parce que dama koy dégg chaque jour ci say kàddu. nga leen di sant di leen gërëm bon donc nag ñi ngi woo waa adduna bi yëpp rawatina waa Yaraax rawatina commune de Rossement bu Hann Bel-Air rawatina nag waa Dalifort bi nga xam ne nii mës nga fa jaar ñoom. Mm-hmm. bon donc loolu mbégte la fierté la euh, dégg naa tamit ngay sant bu baax ISB di bu baax Hann Bel-Air bi nga xamante ne nii ñoom. maa ngi dégg ni am na ñu daan déggante ak yow comme say coach ñu doon déggante ak yow. kon mm-hmm. donc ñooñu tamit boo leen sant gërëm leen jaar na bon. daal ñu ngi déglu sa kàddu bu mu ci doon. waaw euh, maanaam yaraax dañoo am doole dañoo am benn doole boo xam ne maanaam mun naa ne mooy ay sotkat lañ. waaw ay sotkat lañ ndaxte dafa am ay techniciens yoo xam ne ci li ñuy yëm ñoom ñoo ñu ko gën a xam fuuf fuuf fuuf te à chaque fois euh, ñu def match war a war ñu nekk ci lenn ñoom bu ñu paree ñoom dañuy toog dañuy dañuy waxtaan ak ñun jël seen téléphone. waxtaan ak ñun décortiquer ñu match bi nañu lii ak lii waroo ko defee nii lii nii nga ko waroon defee lii nii nga ko waroon defee mën naa cee lim ay Madiagne mën naa cee lim ay Ibulaay maanaam mën naa cee lim ay ay ay ay Belende père Belende moom depuis Koweït fi mu nekk Koweït moom day def sax ay séquence vidéo yoo xam da koy dagg dama Cheikh Ibra lii nii waroon defee lii nii nga ko waroon defee lii nii nga ko waroon defee te moom à chaque fois aussi tamit moo moo moo moo ngi gis ni progrès progression mu ngi am ci côté yu bëree bari bari vraiment moom tamit dama koy sant bu baax mais comme ni ma koy santee nag laa laay sante waa Hann bel yëpp ndaxte gis naa tamit seen taxawaay technicien yëpp bëri na su ma limee sax damay juum y a des anciens joueurs comme Momar Ndiaye aussi dañ may envoyé ay message ay Père Francky ñoom ñooñu ñëpp dañu may envoyé ay message ñoo xam ne li ñu def ci football xëy na Cheikh Ibra defagu ko ñoom ñoo may envoyé message di ma teg ci code donc amuma lu dul sant leen ñoom ñëpp techniciens yi nekk Yarax yëpp waaw ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm quoi waaw jërëjëf Cheikh Ibrahima kontaan nañ ci yow li nga bëgg ci football bi yaa ko xam yal na ko yàlla defal déwén ci heure bi yal na lay interview ay France 24 jërëjëf kontaan nañ ko merci beaucoup euh, résultat bii nii euh, ça montre que ni euh, résultat niveau am na ci sunu championnat bi boo xoolee ñun ba ñuy dem maanaam bokkoon nañ sunu motivation ñoo ngi dem foofu pour wane que ni championnat Sénégal local bi am na niveau dëgg-dëgg peut-être nag euh, moyens yi nga xam ne moom la ñu soxla xëy na moo fi amul moo tax waaye am na niveau bu baax a baax a baax boo xoolee loolu moo doon motivation bi ñun dañoon dem pour représenter Sénégal wan que ni xanaa monde entier que ni championnat Sénégal local bi am na motivation. te boo xoolee aussi tamit suñu staff ci loolu rek maanaam bokkoon na ci lu bëri dañoo ñuy briefing euh, que ni ñun dañoo war a wane que ni championnat Sénégal local bi euh, vraiment y a du boo xoolee moo tax à chaque fois sunu match yi loolu la ñu doon mais aussi tamit euh, sunu coach yi doon wane doon wax que ni ñu ñu ñi ñuy fubale ak intensité bu baax bu baaxa baaxa baax intensité bi parce que équipe yi ñi dajale ñu ci bari bo xolé ñoo doon ñu mag ba bo xolé expérience aussi tamit ñoo parce que ça fait 11 ans yo xamné demu ñu ci compétition boobu donc mën naa ne petit poussé la ñu woon ci ci compétition au début motax tax à chaque fois que su doon insister ci ci côté boobu noonu côté intensité bi côté concentration avec les vraiment euh, ça nous a permis nous euh, ñu de ba def ñu jël coupe bi problème euh, deux jours avant avant finale deux jours avant finale je me suis blessé à l'entraînement. Euh, arrière cuisse quoi arrière cuisse bi waaw dama doon dama doon accélérer, mu def ben kii quoi contraction quoi contraction waaw mo moo football mo quoi ci jour final non waaw. noonu dégg euh, bon critiques yi gars yi doon wax suñu attaquant bi ci ba tournoi bi jeex dugalul bi donc yow nan ko dundee quoi. waaw je pense que ni critiques yi daf ñuy daf ñuy permettre ñu gën a ñu gën a daf ñuy tax ñu gën a ñu gën a yokk rek waaw critique yi moom euh, je pense que ni le meilleur le deuxième meilleur joueur au monde muy Sadio Mané euh, jaar na ci lu mel noonu donc ñun ñun ñun loolu du ñu jaaxal te on s'est préparé à ça parce que ci métier bi ñu nekk moo moo moo moo demee noonu chaque jour même bu nekkee sax yaa ngi def le tour di par force dina am ay critiques moo tax loolu ñu mais suñu course bi nga xam ne moo ñu yóbboon foofu je suis inquiété parce qu'il avait toujours confiance en nous mais je sais na ban si nous ci ci équipe bi bu inquiétés euh, du inquiété côté de on s'est juste concentré et je pense que ce bëggoon nous ko coupe bi jël bi rek ñu intéressé donc nous la dëgër rek waaw. d' accord ah, bu doon di si d' accord wax ji rafet na macha allah. parce que loolu dañoo permettre ne parce que gis nañu ñuy wax après final bi ñu ngi naan attaquant bi chef de moo manqué daal parce que ñu doon wax loolu ñu ngi wax final bi bi moo manqué. parce que joué nañu match yu jeex presque réew ñu occasion. donc xëy na kon sa euh, coach am na raison si si ñoom na kon yow sa capacité loolu doon jëriñ. allez merci. ok waaw dañu ko ñaanal yàlla rek yàlla bu nekk fan yokk ko mu yëg képp ku nekk égolam euh, rek mu mu raw ko ci barke Moustapha ndax seex doom ju baax la ndax seex doom ju baax la doom ju ma bëgg la loolu amoon naa ci yaakaar yàlla yàlla yegg li liggéey mhm. bi nag yan bi ñëwagul Di pasar itu bisa kita ayam bawa kami, bisa ayam. ayam sama rakela sama harit lah. Nah, bu, saya mau bayar saya, saya ini kecikir di. Nyom lah nih. Nah, nyakun semua nih. Bayar saya, saya ini kehalai di andang dia nih. Di andang dia nih. Ini nih kecikir di lupa. Baka juga gini dan nyipi. Di dalam pijangi, Bayar lah dobal di. mau nyota gue, ñu bokk néeg nekk fii ci kër gi ànd ak seen mag moo siise te dara ñaan seex bu xëyee dama ko naan seex danga ñàkk fay dañuy dañuy dem bàyyi laa néeg yow yaa koy defar yaay taal cuuraay yaay togg xale naan ko faat mu nangu torop nekk xale bu dëgg xale bu am yar xale boo xam ne waxu démbam rek mooy waxu tayam li ma bëgg ci mooy nit ku dëgg te seex dafa dëgg lu mu la wax moo nekk ci moom du wax waxu jàmbur du nettal yëfu jàmbur du doxi bañ di ko wër dama koy ñaanal avancement ci kanam li ma ko waxoon rek moom xam na man xam na te li ma ko waxoon mi ngi ñëw te ci kanam la jëm incha allah rabi di kontaan torop torop torop bés tey bii moom wax dëgg yàlla bés bu ne am naa ko waaye tey mooy sama mbégte moo xam ne te moo ko fàtte ma ndax xale nga yore ko ci sa kër ngeen ànd nekk benn ba mu am ndam lii mu am te yaraax yëpp jóg ci may gërëm yaraax yëpp nag bàyyiwuma góor bàyyiwuma jigéen di leen gërëm di leen wax ndax mënoon naa ñëw lii ñu def ñu bañ koo wane waaye nañ ko jàppale ca football ba ba léegi noonu leen jàppale su ñu commencé jouer kenn du am jàmm kenn du ne ñëpp a yi ba mu jouer ba mu pare seex luñ ko defal moo leen ko defal tabarka yaa rasulullah ñoom lii ma ko yéene dina ci yegg insha allahu rabbi dinañ toog fii ba di ko teeru yeneen ndam ñu ne ma nga hôtel sàngam mënu mënta ñëw si dëkk bi dañ ko fay fekki yal na ko yàlla def lépp lu mu yéene ci xolam ci ci ci ci max yi mu jëm yàlla na ko yàlla la yeggale yàlla dafal ko cat cat bu gën a aay yal na ko yàlla dafal loolu rek laa koy ñaanal ndax gis nga doon xale terewul a nekk nit terewul a dëggu nit day dëggu te yàlla tax nit day wax lu nekk ci moom bi jullit nag di jullit pire 4 heures du matin lay yeewu du tëdd ci lal waxtu julli du ko raw li ma gën a bëgg ci nit mooy loolu jullit dafay jullite bëgg ay waajuram bëgg ay boppam lu mu yéene boppam la yéene ñëpp ma koy ñaanal bu baax a baax a baax di ñaanal seexam bi tam yàlla na topp ci moom yàlla leen yàlla may ndam ak képp ku nekk yarax te yéene leen ko ak xale bu fi nekk di di di di focc bal rek ak bi ci yëngu yàlla na ci yàlla may am te yàlla la fal ko cet di leen sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér. ba njariñ bi ñëpp jot ci ànd ci kàttanu yàlla. maa ngi di sant bu baax loolu laa ci amoon lu may wax ba.